بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب bu ko defee ñu dellusi ci tawfiqu borom bi azza wa ci sunu téere boobu di muallimul ko defee dañuy daldi dugg nag ci mbind mu bees moom mooy almaddu bil alif arab yi dañuy jëfandikoo ay masque gisoon nañ masque ya waaye ci araf yi am na it luñ ciy jëfandikoo maanaam lu jëm ci wàllu guddaayu araf bi walla gàttaayam donc dañuy jëfandikoo ay jumtuwaay yoo xamante ni nii dañ koy mën a yokkee araf yi maanaam allonger araf bi bu ko defee jumtuwaay yooyu ñett la benn bi mooy alif benn bi mooy yaa benn bi mooy waaw alif moom buñ koy jëfandikoo di ko yokkee araf dañ koy yokkee araf yi nga xam ni dañ leen a maas fatxa muy a ba ta sa araf yooyu lañuy yokkee alif yaa buñ koy jëfandikoo di ko yokkee araf araf yi ñu maas kasra muy i bi ti si ñooñu lañuy yokkee yaa waaw buñ koy jëfandikoo di ko yokkee araf mooy ab dommatu araf yi nga xam ni moom lañu maasee u bu tu su ñoom lañuy jëfandikoo di ko yokkee waaw bu ko defee ci mbindu tay bii dañuy ñëw ci yokk gi nga xamante ni nii alif lañ ciy jëfandikoo wax nañ léegi ne alif ñi ngi koy jëfandikoo ci yokk ci yan araf araf yi ñu maas alfatxatu muy a ba ta sa bu boobaa buñ ca boolee alif bi a dangay gis mu daal di yokk nekk a gis nga ba mujjee nekk baa dootul yem ci ba bi waaye day nekk baa gis nga ta mujjee nekk taa moo tax bu ngeen xoolee ci mbind mi toujours ñuy fàttali ne arab moom ndeyjoor lay tàmbalee moom yaakaar naa ni miin nañ ko ñu tàmbale woon boobu ba léegi bu ngeen xoolee yokk yi ci alif bi gis ngeen masque ba na mu mel loolu yi nga xam ne mooy taxaw taxawaayu masque ba xam ngeen ni wute na ak ah man ko loolu noonu moom mooy mooy ak yokkam moom alif buñ ñëwee ci baa gis nga fexe nañ ba taqale ci arafu baa bi benn alif mu daal di taxaw jëm ca kaw gis nga boobaa mu nekk baa trait boobu alif boobu buñ ko dindee day delluwaat nekk ba suñ ko dindee day delluwaat nekk ba mais buñ ko ci defee mu nekk baa gis nga noonu boo toppee arif yi benn par benn xëy na diggante alif ba keroog ngay egsi ci daa wala ci xaa xaw naa desee leer waaye boo ñëwee ci daa gis nga daa nga xam ni moom li topp ci ginnaawam du taqaloo gis nga alif bi ni mu séparé diggante daa zaa raa ba gis nga foofu alif bi dafa séparé ak ñoom parce que araf yooyu duñu taqaloo ci seen ginnaaw seen kanam la ñuy taqaloo moo tax gis nga alif bi taqaloowul ak ñoom moo tax alif diggante alif bi ak araf bi maanaam alif bi xëcc ak araf bi am na tuuti espace gis nga ni mu feeñee foofu ma yeneen yi nag moom dañoo taqaloo ba mu des waaw gi yeneen yi ñoom it dañoo taqaloo mais lépp benn la parce que dafa fekk ne araf googu nga xam ne mooy daal saa ra za ak waaw ñoom duñu taqaloog li nekk seen gannaaw bu ko defee kon ñu déem a jàng mbind mi benn par benn aa baa taa saa ba léegi prononciation bi du changé ma ngoog li bees mooy xëcc bi rek da ngay allongé da ngay yokk ma saa nga moo nekkoon sa ma ngoog léegi nag fii nga ne saa di bàyyi xel toujours sa catu làmmiñ di jëm ci sa bëñu kaw yi saa bu ko defee mu laalanteeg bëñu kaw yi jaa xaa xaa bàyyi xel diggante ñaari araf yooyu mooy xaa ak xaa maanaam su fekkee dañ ko wàññi xa ak xa gis nga bi am tomb bi toujours mooy gën a diis mooy gën a ñagas xa mooy bi amul tomb xa mooy bi am tomb bu dee fii xaa xaa gis nga di am tomb xaa après daa raa zaa saa shaa diggante ñaari lettre yooyu tamit bàyyi ci xel bu baax boo xoolee benn bi daa am ñetti tomb waaw bi amul tomb mooy saa bi am ñetti tomb yi mooy shaa gis nga foofu ni muy amee shaa soo doo foofu tamit bàyyi xel seen diggante ñoom ñaar benn bi daa am tomb waaye benn bi amul tomb soo amul tomb doo moom dafa am tomb too zoo kazalika diggante ñaar ñooñu too amul tomb zoo dafa am tomb aa kazalika lettre boobu aa amul tomb waaye ñu fexe bañ koo jaawaleeg xaa xaa mooy bi topp ci jaa ñu fexe ba buñ ko jaawaleeg moom xam nga boo waxee jaa après looy wax xaa xaa ñu fexe buñ ko jaawaleek aa bi nga xam ni moo topp ci zoo fii aa ngay aa ba ngoog ba topp ca moom xaa mooy bi am tomb nag moom mooy xaa ba léegi moom tam wuute nag xaa wuute nag xaa moom xaa la xaa bi am tomb xaa ba ngoog faa faa benn tomb la am gis nga bopp bi ak benn tomb ba ca topp xoo gis nga moom daa am bopp waaye am ñaari tomb xoo gis nga ma moom tamit ñu bañ koo jaawaleeg xaa wala ñu bañ koo jaawaleeg xaa mooy ñaari topp ci ja moom lan la xoo gis nga xoo kaa moo ci topp ba ca topp laa gis nga laa buñ ko booleeg alif laam alif ni muy mel ñu croiser ko laam alif bi maa naa haa waa ma ngoog gis nga kon noonu nga koy toppee répété ko benn par benn benn par benn bu baax a baax comme niñ daan def rek bind yu njëkk ya alhamdulilahi rabbil alamin